si ci ñaareelu pàcc bi à xam ni itam euh, yoon da ko téye weeru avril daaw ba léegi. waaw jërëjëf tàmbali nuyu askanu senegal gi ñuy déglu rawatina gox bi ñu bawoo mu di waa Medina di euh, massaw suñu ñooñ yi nga xam ni euh, daanaka def na quinze jours ci tey ñu téye leen ci kaso bi. te ñu bokkoon ci ñun doon def euh, ab porte à ñu téye leen donc di ma leen wu di masawu képp koo xamante ni téye nañ la ngay détenu politique. laaj bi nag je pense que mën nañ ko delloo gouvernement Sénégal régime mu président Macky Sall moom mi nga xam ni élection bu ñu dëgmal dana fexe ba du nangoo jàkkaarloo candidat boo xamante ni dana ko àndil jafe-jafe loolu lañ def ci président Ousmane Sonko ba tey ñu xañ ko mu mën a bokk ci élection yi lu dul ci ay njuuj njaaj judiciaire Bassirou Diomaye Faye mi nga xam ne yàlla dogal ne ci xarañ teefu président Ousmane Sonko ak xarañ teefu ñi nga xam ne ñoom la sëkkal di liggéey tey jii fexe nañ ba mu doon candidat donte ni ñoom jéem nañ lu nekk jaar nañ fu nekk ba tey jii pour du ñu am mën a am candidat waaye yàlla dogal am nañ candidat niñ ko mën a doxalee nag yenn la mooy ñoom si seen jëmmi bopp gannaaw lu ñu def lépp def ko ci président Ousmane Sonko jéem ko ndax koo xamante ni heure bi waroon nañu fekk ñu àtte ko ba génne ko ci kaso bi ñu téye ko fa ndax lan jàpp nañ ni war na mën a nekk candidat wu euh, suñu projet politique tey jii ñoom ñoo war a am grandeur ak mat gu toll ni wax dëgg yàlla li des as tuut bu ñu nee sër la ñu ne ab benn nocc dong moo fa des ci démocratie Sénégal ñu jéem ko rafetal li ci des akum néew mooy bàyyi ko mu génn ci kaso bi génn mën a def campagne comme ni ko ay moroomam ni nekk candidat nar ko defee ci élection yi ñu dëgmal ñoom ñoo war a am mat ak grandeur gu toll ni lajj nañ boobu ba léegi ci seeni pexe yoon ba du ñu am candidat lajj nañ ci yàlla dogal na am nañ candidat nañu am nag yaatu dënn gu toll ni ñu mën ko mën a bàyyi mu génn def. campagne mais lépp yoon a ko dogal yoon mi ngeen di xalab euh, moom ngay def nii euh, bu fekkee yoon di conseil constitutionnel nee na jomay la kay. Euh, xanaa euh, du ngeen wéy di leen xalab am déet. buñ dee wax xalab yoon itam dañuy sukkandiku ci ay jëf loolu foog sénégalais yi xam ko yéen it tamit foog ngeen xam ko buñ dee naan yoon dafa am taxawaay boo xamante ni rafetul dafa am fu ñu teg suñu baaram benn exemple laa la mën a jox tey jii conseil constitutionnel ci lan la mën a sukkandiku ba mën a wax que ni Ousmane Sonko du candidat ci élection yi. dafa ne lan naam Ousmane Sonko sax xañ giñ ko xañ mu jël fiche de parrainage xañ gi ko xañ pour du mën a am euh, attestation caisse de dépôt consignation te may biral ni am na quittance bi wane ni déposé na conseil concerné loolu nee na loolu manquement yooyu kenn mënu ko naam kenn mënu ko teg ci ci kaw Ousmane Sonko waaye dafa ne Ousmane Sonko mënul nekk candidat ndax lan dañ ko daan ci dossier diffamation gis nga liy xañ nit électeur procédure administrative la mooy lan radiation c'est pas que dogal am na dafa war a am une procédure donc procédure ci ngay sukkandiku pour mën na radier nit ki ci fichier électorale ba du doon électeur su doonul électeur nga ne kii amul éligibilité waaye dogal boobu kañ la génn ana procédure de administrative de radiation boobu suñ dee wax que ni yoon dafa am taxawaay boo xam dañ ko fay xaar te agsi wu fa dañuy duut ay fait dossier diffamation bii nga xam ni moom la conseil constitutionnel sukkandiku xoolal kañ lañ ko enrôler pour jugement c'est le 2 février 2023 kañ lañ ko jugé ci diggante 2 février ak 8 8 mai 2023 jugé nañ ko fi première instance ba jugé ko fi appel ba yóbbu dossier bi cour suprême ci jamono ju ñuy lijjanti ay mbiru candi dossier candidature cour suprême euh, dogal tey jii programme àtte bi nga xam ni mooy dossier Ousmane Sonko ak euh, Mame Mbaye Niang pendant ce temps am na ay dossiers yu nekk cour suprême je rappelle que le dossier entre le juge Téliko ak ma Madiambal Diagne dossier diffamation te ba tey jii vidé guñ ko je rappelle que le dossier de diffamation entre le capitaine Touré et le journaliste Cheikh Yérim Seck ba tey fii may wax ak yow bii mooy ñetteelu atte dàq guñ ko dàq ci juróom-ñaari weer ba tey kenn mënu ko atte mais pour Ousmane ko gis nañ ni mu gaayoon donc suñ dee tudd yoon di joxoñ baaraam yoon dafa am ci ay firnde yu ñu ko teg. ak yeneen ak yeneen yu ñu mën a lim reconnaître tout de même que loolu du conseil constitutionnel. waaw mais conseil constitutionnel conseil constitutionnel ci li muy sukkandiku moom mooy la mu am. waaw lañ lañ ko jox nag. Mhm. c'est une commande politique. parce que conseil bi sax ci jëmmi boppam moom boo jëlee ci dogal gi mu joxe lan lañ njëkk wax dafa ne du càmbar dossier candidature Ousmane Sonko parce que dossier bi matul mu wëlbatiku bi mu ñëwee ci décision ñu def recours décision bi mu joxe. dafa ne non waxatul dossier bi matul de dafa ne non Ousmane Sonko dañ ko euh, dañ ko daan ci dossier difformation condamnation. loolu tamit xaw nañoo jaaxal tuuti est-ce que ça aussi hmm. c'est pas la de la réclamation de Ousmane Sonko. déedéet mais euh, euh, Georges Dethié ji nga droit logique la dafa war a aboutir à une cohérence est-ce que Ousmane Sonko bu deful woon réclamation après la publication provisoire li yaakaar nga ne conséquence dana addu ci moom. mais mais Georges. nit suñ la génnee ci mbir te niñ ko tegee du yoon am nga droit wu def recours. te recours bi dama ne la liñ ko génnee ci njëlbeen gi moo di lan dañ ne Ousmane Sonko dossier matul moo tax du ñu càmbar. amul kayitu CDC amul kayitu CDC xam nga loolu la ñu wax. mais tey jii bi ñuy confirmer ñoom ci recours bi ñu def lan la ñu joxe dañ ne Ousmane Sonko dañ ko daan ci euh, ci kii dossier mook euh, Mame Mbaye Niang te loolu je rappelle que dossier boobu y a une décision judiciaire de la Cour suprême. mais pour nga ne nit ki doonatul électeur loolu procédure administrative la est-ce que def nañ ko donc suñ dee ŋàññ yoon di joxoñ baaraamu tuuma yoon dafa am ay firnde yuñ ko mën a teg donc waxuñu rek ci suñu teey baket wala dañu bëgg a dal ci kaw nit ñi mais li ñu gis ci nguuru Macky Sall 2012 ba tey mooy élection bu ñu dëgmal dana fexe ba ñam war a jàkkaarloo ñu war ko duma ci suuf dina fexe sukkandiku ci yoon du ñu jul dem ci terrain politique mais suñu yoon la ñu utiliser. ah xanaa wóolu wu leen Diomaye ak yeneen candidats yi opposition bi ak ñoo ko wóolu. ak ñoo ko wóolu ndax projet bii ñu nekk naam président Ousmane Sonko moo jiitu ci bopp bi waaye ab projet politique la du ab entreprise politique personnelle c'est un projet politique collectif te ku nekk ci ñun tàggat nañ la tàggat goo xamante ni yow ëllëg. élection bu mu mën a doot suñ la ngembee nga war a mën a am dam te loolu gëm nañ ni dinañ ko am waaye nag dafa fekk ni balaa ñu cee dem foog ñu leeral askanu Sénégal lii nga xam ni moom la nguuru Macky Sall yàgg def jël loxoom dugal ko ci justice pour écarter ay candidats saa yu ko daan mës wax ñu ñu naan da ngeen ni attaquer justice mais ay fait la te fait yi ñuy joxe kenn mënu ko weddi. waaye nag ay yu graaw ngay def nii de. accusation Macky Sall dugal loxoom ci biir justice nga wax. Babacar Fall 2012 ba tey wax ma élection bu am. te Macky Sall jëfandikoowul justice écarté ab candidat liimal ma bi biñ ci jógee 2012 mu fallu dossier Karim Wade la andi élection législative 2017 Khalifa Sall élection présidentielle xalifa sàll Sall Karim Wade ñu jógee ci tey ñu ngi jëm ci élection présidentielle euh, de de deux mille deux mille vingt quatre te lu jiitu loolu législative yi passé kan moo xaaj liste. titulaire ak suppléant su fa mu jóge ci élection yi passé donc loolu. ma koy ko xaaj. mais ci ci lan lañ sukkandiku encore l' administration pour andi ay jafe-jafe li nga xam ne code électoral mayoon na ñi ñu corriger ñu ne ko corriger dañ koy xaaj conseil constitutionnel moo ko xaaj. list yi nag bi ci yi baaxul yëpp ñi ñi ñi defar liste yi defar lu baax. xam nga tamit loolu mooy dëgg. Babacar élection code électoral moo koy organiser. su dafa am njuumte yoo xamante ni su amee code bi may na la nga corriger waaye lan lañ def mais bàyyiwuñ nit ñu corriger donc lii ma la wax nii ay fela encore une fois dama la liimal élection bu ci nekk nguuru Macky sàll fexe na ba candidat ba ko war a andil jafe-jafe dina def tout pour écarter ko ci élection yi te loolu nag moo jaaduwul. ndax su fekkee ni yow da nga ne liggéey nga ci réew mi comme ni mu koy waxee sama bilan matériel sama bilan matériel sama bilan matériel yow kañ liggéey nga ba nee nga ba sénégalais yow lañ bëgg nee nañ la gongo tànn nga sa mbër te nee nga woolu nga ko yow kañ looy doy di écarter candidat mbër ma nga tànn sax ñëw na ba ci conseil constitutionnel dinaan nañu neenal ay candidature yu nit ak nit donc dafa doyadi c'est son droit aussi non mais comme ni ko ñeneen ñi defee ci i candidat mais ñun ñun mbër moomu mënoon attaqué def suñu def recours ci suñu candidature mënoon nañ def recours ci ay candidature mais euh, xam nga rien ne vous l'interdisez déedéet xam nga lan moo am solo Georges Déthié gis nga politique avant tout c'est une question de légitimité te légitimité c'est pas décision de justice c'est pas une procédure administrative moo la koy jox mooy da ngay dem laaj baatu askan wi sa moroom ñëw def noonu ñu xëy benn dimanche ñëpp ñëw tànn mais loolu yëpp ci as ci ab sas la sukkandiku de charte la. dem. déedéet charte daa yoon nga xamante ne bi ñu teral ku ne mën cee tënku. waaw yoon googu itam yoon woo jox la sañ sañ yoon ñu tëral tey jii. pourtant même yoon boobu moo ne Ousmane Sonko dañ ko war a delloo ci fichier électoral bi bañ ko ñaari yoon loolu ndax kenn du ci wax te pourtant yoon la donc nag réew mi nag dafa am loo xamante ni dañ ko war di moytu mooy su fekkee ni yoon dafa jox dëgg ab opposant ñu jël. administration bi dox ci diggante ak loolu su fekkee ne nag loo xamante ni dafa arrangé nguur gi ñu ne yoon moo ko may li yoon may opposant yi nag duñ ci wax. non ci recours yi moo tax may wax conseil constitutionnel fa lépp war a tënk ko ci wàllum élection yéen vous avez la possibilité bu fekkee ne gis ngeen li nga xamante ne mën na gàllankoor mën na tax ba ñu rejeter beneen candidature yoon may na leen yoon may na leen ngeen saisir conseil constitutionnel. dama la jox suñu esprit. Mhm. ci compétition électorale. mooy lan askan wi moo am baat yow nee nga mën nga am nga doole sénégalais yow lañ bëgg ñun wax nañ loolu itam nañ ñu bàyyi ñu dem ci askanu Sénégal wax ak ñoom ñu voté ñu xool ku mën waaye yow déet nee nga yaa mën yaa ëpp doole liggéey nga euh, comme ni ñu koy waxee <laughs> Sénégal gépp gongo léegi keñ su fekkee wóolu nga sa bopp am nga bilan matériel bu mat sëkk kon da ngay nangu dem ci terrain politique bi ci jongante bi waaye maay mbër mi ëpp doole waaye da ngeen may teel samay adversaire arbitre bi maa koy tànn supporters yi tey ñëw ci stade bi maa leen di andi boo doonee roi des arènes itam war nañ ko xoolaat. yéen itam kenn xamul lu ngeen di kartu Sonko kenn xamul lu muy joué parce que euh, euh, bi ñu nee nañu xool keneen comme da ngeen jàpp ni dañ koy xañ a bokk ci élection yi mu tànn Bassirou Diomaye Faye mi nekk ci même situation que moom nekk ci kaso bi. Mm. te ñeneen ne ci biti yow yaa ngi ci biti euh, Almalick Ndiaye Birame Souleye Diop. noonu ñooñu moo gënoon yomb tànn ku nekk ci kaso bi noo gan carte ngeen carte noonu. waaw carte gi ñuy carte na yàlla dogalu ñun ak borom bi doo nga ko xam te incha allah lañ ciy ut di ko sàkku buñ ci àggee sénégalais dinañ. xam ne liggéey bu xaaba ngeen. de du ñooy bu xaaba ay nit yu bëgg seen réew lañ xëy suba nekk ci yitte guy tax. yàlla mel ne tànn Bassirou Diomaye Faye gi moom c'est xanaa Sonko yéenewu ko ñoom biram sule yooyu itam ñu xam ne ñoom jàppuñu leen ñu ngi ci biti mën a campagne mën dox ak seen tànk dugg seeni i woto dugg ci réew mi loolu tam yéeme na lool. ah xëy na yaa jàpp ni yéene wu ko loolu sa xalaat la mën nañ la ko bàyyi. dañ lay laaj kay ah mais pourquoi Bassirou Diomaye Faye et pourquoi pas les autres. waaw pourquoi Bassirou Diomaye Faye ñun ñoo ko xam ndax na nekk na koo xamante ni li ñu mën a xaar ci Ousmane Sonko mën nañ koo xaar ci moom. dëgg la waaye moom mënut a campagne. fi mu toll waaw a campagne loolu nag fi mu toll nii mooy waral nag ñu war a fas yéene taxaw di wax nguuru Macky Sall xanaa dinañ am mat gu toll ni nag mën nañ ko libérer mu campagne ndax nag gàcce bu gudd ak bu gàtt fi am comme gàcce daal da nga ci àgg da ngay jël bi gën a tane rek bi gën a tane ci ñoom nag mooy ñaawal nañ ba fii li des ci seen nguur nañ ko rafetal te bàyyi doomu jàmbur mu génn campagne ndax mu nekk ci biir mu nekk ci biti duma leen mu nekk ci biir duma leen ñoom nag ñoo war a tànn te seet liy rafetal. Bassirou Diomaye fay euh, Habib Sy bi nga xamante ne ay député Pastef ñoo ko euh, pare ne Cheikh Tidiane Dièye wa nga xamante ne nee na euh, Ousmane Sonko. bu ñu validé woon candidature am moom day désisté wu ngeen ne Bassirou mooy Sonko. Uh-huh. est-ce que du am jafe-jafe ci tànneef bi. ci ñooñu gis nga mooy li ma wax li ñuy doxal ci politique dañ ko sekk ak ay nit yu am xel ay nit yu am gis-gis rawatina ki nga xam ni mooy conduire sa projet politique la mu di président Ousmane Sonko kooku noonu tey jii étape bu mu ci toll. la mu ca war a def ñamu ca war a waxtaanal dana ca waxtaan ak ñoom ñu xool la gën par rapport ak fi ñu jëm li gën par rapport ak suñu stratégie ñu jël ko décider ko ànd ko nañ ko sekkal ñu doxal ko. je veux dire est-ce du am dispersion des forces ndax abi Sy quoi qu'on dise candidat pas euh, seen seen lañ ko mën a jàppee. ba fii may wax ak yow suñu projet politique ñaari candidat la am muy président Ousmane Sonko ak Bassirou Diomaye. ah da ngeen di ñeneen ñi léegi. da nga may déglu ma daaneel. ah danga may déglu ñeneen ñi dañu yor seen kuréelu politique defar seen dossier de candidature dem déposer conseil constitutionnel. man nag waaye ñooñu nekkaloon nañ leen ci naaj beeg ci ngelaw li itam. waaw am déet ànd ak yéen di xeex fu ngeen taxaw ñu taxaw fa. ñu nag ñoo ñu mënoo dox suñu diggante. waaw déet jéemee su ko sax. waa kon nag dangay ngay déglu ma wax la li ma lay wax moo di ñooñu dañu di ay ay candidat jiite kuréelu politique. defal seen dossier de candidature dem déposé ko conseil constitutionnel. man nag yabuma leen yab gu toll ni kilifa yu toll ni ñoom ñoo xam la tax ñu jël def seen dossier de candidature déposer ko man leen laa ñëw leen ngeen nekk suñu plan wala suñu option. lum ci mën a doon itam mooy ñun dinañ ko toog. waxtaan comme nañ ko defee boobu ba léegi muy continuer di dox ba nguuru Macky Sall étape bu mu toll ci ñun am ci jafe-jafe. léegi léegi léegi Bassirou Diomaye Habib Sy. Euh, ku dese sax Déthié Fall. ak euh, des na ñeenteel euh, ñoom ñëpp euh, est-ce que yaakaar nañu ginnaaw yéen bokk bëgg-bëgg bokk gëm-gëm àndoon ci yeew yi di xeex ba lii am-am est-ce que foogoo ni ñëpp war nañoo bàyyi bàyyi kenn dem. Babacar mooy li ma la wax am na loo xamante ni ku ci nekk sa cëggal guy la waaye ñi ñu ko sékkal di liggéey bu jotee lañu ñu war a toog wax ko danañ ko toog wax ko waaye nag du fii laay ñëw di waxtaanee wala di jox orientation ñoo xamante ni comme ni ma la ko waxee ay kilifa lañ yor seen parti politique defar seen dossier de candidature dem déposer leen man may toog fii ci rajo bi naan leen nii ngeen war a def ak nee ngeen war a def loolu du suñu wareef ñun li ñu war en tant que responsable en tant que nit ku nekk ci kuréel politique mooy dafa am ku ñu jiital ci suñu xalaat ak suñu tëralin moom ca fa mu nekk ca Cap lii ñuy doxal lépp. ci ay xalaatam a gis ngeen te lu mu ci doon dana ci toog ak nit ñi waxtaan ak ñoom kooku nag nañ ko bàyyee woon te 2014 mu ànd di liggéey ak i nit ba projet bi toll fii du ñu agsi ba fii bëgg ko jiital ba pare di ko fa xastal ñun nag noonu la ñu bindoo donc ñoom bu jotee ñu toog wax lañ ca war a def dinañ ci war a def te buñ ko defee itam décision buñ ci jël dinañ génn ci kanamu askanu Sénégal wax leen ni lii la ñu décidé donc incha allah ñëpp ànd ci ba keroog yàlla may ñu ndam 25 février incha allah. comme nee ngeen euh, Macky Sall na bàyyi Bassirou Diomaye mu campagne yi on n'y encore génnagul ban stratégie ngeen fas yéenee nas ngir moom mu bokk ci campagne bi. Bassirou Diomaye Faye suñu candidat kenn mënu ko génne ci campagne bi am na nag loo xamante ni suñu pexe la du ñu toog fii di ko wax te ku xool li ñu jël dóor ko suñu kaw boobu ba léegi te teewul ñu ngi continuer di taxaw ñu xam ni ñan ñuy àndal di liggéey. du ñu ay cuun cuune ak i coomo. xanaa da ngeen ko bëgg def ni ko amee kuruma ay jamono. fu ñu ci toll rek la ñu war a def incha allah ci stratégie danañ ko teg ngir ko lu ñu jàkkaarloo muy obstacle ñu jéggi ko continuer suñu liggéey ba jëm ci ndam li nga xam ni. moom la ñu war a jot mën a jaay ko am jërëjëf. <laughs> Ousseynou Ly <laughs> ma a ba am ma laaj ma tontu rek. waaw jërëjëf Ousseynou Ly. wala continuer mat ba amatoo loo <laughs> waxtu wi jeex na ñu ngi lay gërëm Ousseynou Ly comme d'habitude euh, bu ñu la woowee ngay yegg si. jërëjëf Babacar yéen ak jàmm. jërëjëf Georges jërëjëf Georges a Soxna Naata. merci beaucoup euh, Babacar Fall Georges Dethié Diop ak seen gan Ousseynou Ly di leen ñaanal kenn dal ak jàmm ak programme.